Sénégal moom buy tàkk ëllëg liste bi dinañ ci gis aji wala aja ñoo ngi leen di nuyu di leen jaajëfal yéen ñi ñuy suivre ci chaîne bi di Likzo TV sûrement bu fekkee gën nga ci chaîne bi abonneel nga basaal sa cloche ngir vidéo bu ñu mën di dugal nga bokk ci ñu ko njëkk a seetaan ginnaaw ba kii nga xamante ne bii moo di Adja Thiaré bi waxee ne Kaliphone daf ko pénétrer indil ko ay problème ba nga xamante ne bii moom dafa dem ci yoon clamé kii nga xamante ne bii moo di kalifon ginnaaw boobu loolu amee ndekete li muy wax lépp ndekete dara dara dara du ci dëgg gars yi ñu dem déglu révélation yooyu nga xamante ne bi Barra Zero Search def na ko ci gars yi ñu ko Sénégal moom buy tàkk ëllëg list bi dinañ ci gis aji wala aja ay xale yu juddoogul ci nem taxaw ci kontooru réew mi rek ne di ngeen ko taal mais nag di ngeen xam ne tuuti ngeen ci ku leen ëpp mbokk mënu leen koo jëm Sénégal ay mag ñu baax a fi tëdd di ngeen bàyyi réew mi en dem na ba nga xam ne ku ci am doom bu tudd Adja wala aji sax da nga koy jéem a rawale yóbbu ko ikireen ca guerre ba ñeme ngeen scandale ñeme ngeen histoire ñeme ngeen yaama ko baama bàyyi leen ñu en paix li laay war a sóoli atte bi nga xam ne moom la doomu aadama di atte génn na bi yàlla di atte nag allah wax lan yàlla rek a xam mais docteur yi xamal nañ nit ñi carrément ne leen yow Californie mosul laa pénétrer mosul laa duwaate mosul laa baaraamu mosul laa luqaatu say ween li ko sonnal mooy say xeex man nag man bettoo ma mosoo maa jox eeru nit ku set ku polito déedéet donte Californie nit ñi saaga nañ ma jàpp ne sax moom laa faral waxoon naa ko ci lu ne mais man mosoo maa jox eeru nit ku ku nor set parce que sa problème yëpp yaa ngi ko doon réglé ci histoire yi mel ni ab américaine di poste di bind ay lettres.